ahlan bikum xalifa général des mourides fa tere lépp luy xaaju ci wàllu politique ca dëkk bu sell ba allah l'observateur moo ñu ko xamal leese ko yéen a kaay na ko sëriñ muntaxa basiru mbàkke kay fa wax na caaxaan faaxe tuuba gp yéen a kaay na ko faaleen di wax ni mu def fa daal di tëj fermé bureau de vote ya nee na kenn dootu woteeti sax tuuba nañ génnee bureau de vote fu ñu xam dem ak moom critique yéen a kaay ne yëfi koy fi mu toll ni leer na intaha c'est fini tuuba moom kenn dootu fa seeti direct news na xalifa ba kay fa jël ay dogal yu rëy te am solo le mandat yéen a kaay na ko fa wax na doy na sëkk caaxaan gi ak wàllu politique bëggatu koo gis te dëkk bu sell ba di Touba lii yéen a kaay na ko xalifa ba kay fa sib dindi wàllu politique ca Touba ba pare nag lu jëm ca kaaraange dëkk bu sell ba ci loxo Baye Fallé la ko teg l'observateur ne faa leen di wax li waral xalifa général des mourides tere politique Touba yaw seetal fa bëri ay dogal yu mu jëloon poussé la ba loo xam ne musu faa xam mu ne leen waa léegi kon fi mu toll nii politique sax tere mu jeex yéene kaay bi na dogal bi ni mel nag fa nar a am ay conséquences yu garaaw ayow fa ngay xool su fekkee fa ñoo bëgg a toxal bureau de yi loolu fa nar a xandi gàllankoor ci doxalinu wote yi bés bi yéene kaay na ko faay dëggal li nga wax gis nga Touba fi mu nii lépp a soppeeku bureau de wet fa amoon fa ñoo bëri de juróom benn téeméer ña fa doon wotee toll groupe wal fajri njiit la Cheikh Niass ak i journalistam alerte yéen a kaay moo ñu ko xamal wal fajri yéen a kaay ne ñun ñu fa demoon kaay ñoom génne nañ bataaxal jaaxal ngir xam le ne li ñu bloqué compte Walfadjri boobu nekku seen coobare kilifa yi ñoo leen ko sant te ñoom bu leen kilifa yi santee fañ koy def lii rek la de leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Bougane Gueye Dany fa demoon Medina Baye ña seeti xalifa ba naka noonu ak leew nañu seen seeti xalifa ba waa grand place yéen kaay ñu ko xamal waaye fa caa yokk na ñaari xalifa yëpp fañ koo ñaanal exclusif yéen kaay ne waxtaan na ak ñoom wii kuloo wax na leen tamit ay dëggam ci tolluwaay réew mi moom Bougane turbine yéen kaay ne Bougane kay fa effacé njiitiram Macky Sall ca kër kilifa diine baneen kilifa diine di sëriñ Moustapha Sy njiital Moustarchidina wal Moustarchidaat yi ca kanam mbooloo mu bëri taalibeem ya yëkkati na kàddu yu rafet jëmale ko ci Ousmane Sonko ah, yow seetal fa wax na fañ koo sonal te moom Sonko jàmbaar la góor la te moom fa xam cofeel ci moom yoroor yéen kaay na ko moom koy yëmut fa ñetteelu mandat bi sax fa ci artu njiitala Macky Sall regard yéen kaay na ko voilà ñetteelu mandat boobu ngay wax sax bokk na ci li ñu war a waxtaanee ca dialogue politique ba nga xam ne fi mu fa tàmbali naka noonu ñi xam ne fa ñoo bëgg ñu bokk ñeneen ñu bokkoon ci ñaxtu yi amoon Sénégal fitna altine bërki déem njaay di juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ay guinéen Dakar Express nee na kilifay réewum Sénégal fañ leen a dàq ne leen acca dem seen réew yéen dëkku leen ci réew mi ba pare ñëw fii naan yéen a ngi bokk ci ay ñaxtu di taxal ak rajax ak lu ma la mënta wax nga ne loolu baaxul te du yoon libération moom di ñu xamal keneen kuñ jàpp wulli njaay Kër Masaar lañ ko tegee loxo Pastef bu Linguère la bokk ak coordinateur u di xamal ne donte téléphone am ya fañ koo nangu terewut fi mu nii ma ngay jokkoo ak waa Pastef yi ak lenn ci kilifa yeew yi jaaree ko ci beneen portable <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne wàllug mbay mi ren nawet bi nguurug Sénégal fa cee xar tànk tubóyam jël ay matuwaay lépp ngir taxaw baykat yi ci ndigalu njiitëram Macky Sall la Soleil yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'Observateur mooy ne Wally Seck concert am ba mujj na ko amal ca Paris de donte xamoon na Sénégal yi fa demoon doon ñaxtu naan du xamee ndax fitna ji am ci réew mi taluñ loolu moom Waly direct news moom di ñu xamal ne député Amin Ndiaye ñii bi fa wasin maanaam xam na doom yéen a ngi fàttaliku mooy député bu jigéen bañ dóoroon ca assemblée te ñu waxoon fa hëmb xam ñu ko doon weddi na hëmbut xanaa fi mu toon ni leer na xam na doom de li nar a xam ci fan yi di ñëw muy tabaski bi l'évidence yéen a kaay nee na boo moytu fa nar a saf sàpp ndax xar fa manki ba pare fa cher tàggat yaram Man City fa ŋàbbu coupe ba Ligue des champions ginnaaw bu mbuqee Inter l'observateur moom di ñu xamal mbir mu yéeme te garaaw fa benn xale bu góor daal fa doon génn bëggante ak benn soxna